bayit yi mi ngi jóge ci cheikhul xadim mu wax ne yow sama waay na nga yittewoo saa su ne ak topp yàlla lii di ak mooy nag moom bul ko jege fenn na nga woo xam li la war ci sa diine te lépp loo ci xam na nga ko jëfe bul sànq sa waxtu ci ay caaxaan ak naka sudut noonu sa dund gii nag mu gudd mu gàtt na nga xam ne boo ko defee ci dajale alal ak topp sa bànneexu bakkan bu ëllëgee di nga perte pertaange gu rëy na ngay néewal say nelaw te doon ku ñeme xiif yooyu yépp nag na nga ko booleeg ragal sa boroom ragal gu mat sëkk ci lu nëbbu ak ci lu feeñ bul bëril waxi caaxaan te na nga wattandiku lépp loo xam ne day ñoddi nit jëme ko ci gàcce ëllëg yooyu nag yu baree bari la yu mel ne ràmbaaji nit ñi wala di réyréylu ci seen kaw wala di leen xeeb wala di leen ñaawal